Assalamu taxaw seet. asalaamaaleykum mbokki internetu Sénégal TV amati nañu mbette ak contente dalal len sen émission comme niñ koy défé rek euh, saa su taxaw euh, comme d'habitude rek tey nag euh, dina xaw am ben changement touti parce que on a deux invités hors pair qui sont là donc c'est un honneur pour nous de les avoir parmi nous hein. mm. voilà donc. Euh, ma njëkk a bàyyi sama chroniqueur yi ñoom ñu présenté wu Samb. voilà naa la merci monsieur Tidiane Dia fay naa la ginnaaw ba ñu dalalee plateau bi. Mhm. di nuyu sama chroniqueur mbokk chroniqueur Mouhamed Samb. Mhm. ak suñu invité yi Moussa Niang. ak mhm. Moussa Dione ak Ousmane di la jaajëfal. ok merci beaucoup euh, monsieur Mouhamed le tonitruand. <laughs> waaw ci maa ngi lay jaajëfal di nuyu sa plateau bi tey moom macha allah. waaw plateau bu neex la. ok D'accord, d'accord. voilà donc. Euh... Sambo m'a marché sur la langue. Je, voulais quand même avoir l'exclusivité de présenter mes invités. Ah. Mais moi, mon Khamgarek, mon Le ah. ah, présentateur, mais de fois Khamgarek, quoi. Mais ça me Voilà. Donc, euh, parmi nous aujourd'hui, hein, comme nous m'avons fait c'est un honneur et un plaisir de le recevoir, Moussa. Wow, le, le maestro, Nunal waaw maa ngi maa ngi jaajëfal ñëpp ñu fi nekk. Ah. waaye di jaajëfal tamit sama kilifa. Ah. kon à chaque fois su ma toogee ci plateau bi rek man tamit da ngeen may jox cër bi. Mm-hmm. tey aussi moom mu nekk fi dañ koy delluwaat cër bi. tout à fait tout à fait di nuyu mbokk internet yi. Mm-hmm. waaye nag dina jaajëfal yow bi nga xam ne tamit kenn du yow. merci beaucoup merci bu baax doxalal rek. waaw ok merci beaucoup en tout cas c'est c'est c'est encourageant. Hein. <laughs> voilà donc euh, il est là. Hein c'est encore un plaisir et un honneur. Wow, le, le sage. waaw le maître le maître, il est là quoi xam nga Ousmane. waaw dalal ak sur si plateau taxaw seetlu. voilà donc toujours pression. taxaw seetlu bu ñu jël sa loxo ah dañ la ko <laughs> je vous en prie vas-y parce que vous le faites bien ah, quoi. merci beaucoup donc toujours euh, pression lay nekk si man. Hmm. bokk ak yéen plateau. parce que non seulement sas bi ngeen may sas. Hmm. mais dem aussi ba xam ne a ngi def loo xamante ne ni man donc euh, alhamdulilah. Euh, pression là quoi pour ma bokk ngeen plateau vraiment. <laughs> en tout cas vous dee pression la mais en tout cas honneur le si ah. voilà donc chers internautes li vous leen indi loon euh, comme thème euh, déjà xam ngeen luy actualité bi nit ñee koy faral di wax mooy la mauvaise prise en charge des médecins dans les hôpitaux la dernière en date mooy bi kaawu xale bu jigéen bi jot a faatu récemment si ben hôpital bu nekk Pikine donc mu nekk que aussi jur na invité aussi ak euh, chroniqueurs yi ñu aussi le vrai problème là où le bas blesse quand même pour aussi la prise en charge des des des des sénégalais bien des citoyens lambda dans les hôpitaux métti na trop gaa donc aujourd'hui on va en tout cas étaler le débat faram-fàccee ko bu baax baax ak euh, les invités et mes deux chroniqueurs préférés en tout cas hein. donc lii lañ leen indiloon ji euh, on va quand même donner d'abord la parole à Moussa. Mm-hmm. Moussa euh, ban lecture nga def si si si si événement bi jot a xew nii bu tiss nak. Wa xam nga Tidiane damay waxat ndax suma waxé waxee na am ñi sétane tam ñu ni waji mom à chaque fois suy wax rek dafa am benn côté bu muy tibbee. du loolu en fait dama dem ba amatuma tiis mm-hmm. maanaam affaire bi léegi dafa mu dafa mel ni mbóot buy dee la quoi mm-hmm. mbóot dafa dem ba mujj gi loolu laay yëg léegi mbóot mm-hmm. bu dee ngorom dëgg dëgg mu dee loolu la parce que bu ñu ba léegi bakken di dee rajo yi ku ne di wax ñun si lañ bokk on va donner encore les idées on va donner encore ce qu'on pense mais demi day amaat kon pense que ba daan ci wax ndax nañu mais ci benn côté nam ñu ak nañ ko waroon yëgee mhm. yëgeetuñ ko noonu mhm. ndax booboo feeñ mhm. ci ñaata yoo xam ne feeñu mais on a l'habitude on a l'habitude parce que léegi dafa dem ba nekk habitude tout à fait bu njëkk bu deret tuuruwaan rek àdduna tukki na mais léegi lépp c'est gratuit lépp dafa dem ba mu jig amatul benn sens affaire bi nag euh, déglu naa deux versions yëpp déglu naa femme bi déglu naa euh, médecin bi médecin bi ki ko opéré borom hôpital bi responsable bi

dafa dafa saxami sama la ci comme ni ko mm. wolof yi di waxe mm. donc nee len toujours pression les nek ci man bok ak yéen plateau parce que lu nekkoon luñu ñu doon jàng léegi nekk na ba man xamatuma sax fan lay tek sama tànk su ma toogee ak yéen tellement que wax bi da fay nek lu ma bëggoon wax mom la wax mais du terre aussi mm-hmm. il faut que ñu jëma wax parce que mënu ñu tëj débat bi ci fi fi mu nekk nii rek ñu bayiko ñu bayiko fofu quoi mm-hmm. euh man euh, sans papa dafa dès le 9 euh, février 2016 euh, alors ça m'a 20 ans dès le 1er euh, janvier 2017 donc ku si que presque ay pendant pendant 9 mois sans pas feebar na pendant 4 euh, ans oh yo xamante ni donc dama don nek ak ñoom mm-hmm. hôpital mm-hmm. donc euh, ki ngeen invité tay mm-hmm. waxul leen xam li nek ci réalité réalité yi nek ci affaire hôpitaux yi quoi donc euh, lu mu ci man ci don rek ñu tiital suñu bop tiital aussi ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéey ci hôpitaux yi parce qu'ils sont pas épargnés ñom muccuñu si lii dal nit ñi wala li ñuy def nit ñi bu dee si tayef la wala xaalis moo tax ñu koy def mm. ñoom tamit mucc si loolu parce que nag yërmande bi amatu fi xol bi nga xamante ne ni moom la nit war a yëg

un jour aussi dañu leen di def loolu. Mm-hmm. voilà ok Mouhamed Samb. Mm-hmm. Euh, lan mooy sa analyse par rapport au fait. Mm-hmm. non analyse bu ma la def mooy Tijaan man affaire bi dafa ma dépassé. su ma gisee ne yërmande amatul. lu mel ni médecin am na yenn cas yoo xamante ne yow soo koy wax sa da ngay tiit. parce que ñun suñu hôpital ci wax ñoo feebar. te day hôpital bu feebar day dem ba wàllu personnel bu feebar. day dem ba yërmande day dee ci ñoom. lu am solo mooy que nag. nan xam ne ñun ñu ni nen la mm-hmm. hôpital boobu nag ñu koy indexé bëri na moo nekk hôpital bu gën a cher bu gën a métti mm-hmm. boo nekk ci biir mbënd bi nekk ci biir foo xam ne si la banlieue goo ñoo xaman ne fa la ñuy dem mm-hmm. di daan dool amul sa njëgu ticket nga jël lal lal pour accouchement rek cent quinze mille la soo ko defee deux deux jours ngay def gis nga nit ki soo demee bay implanté hôpital ngay implanté fa nga xamante ne ñu néew doole fan nekk war nga mën a xool ñoom seen doole fu mu yem nga jàppalante yàlla tax mais question ndimbal te yàlla tax la. Mm-hmm. parce que yow da nga nekk ci pays boo xam ne sous-développé la. Mm-hmm. su ñu am suñu problème santé man ba ma dégg affaire dama dépassé. Mm-hmm. dama ne man ban monde la nekk ban Sénégal moo nekk jamono ji ak ban Sénégal nan la mën a dundee. ak suñu hôpital yi nan la ñuy mën a def te ba saytu leen ba nga xamante ne cas bii nii nii dafiy jeex. parce que tamit euh, sama dee daa wax lu am solo. neen da affaire da ngay kii dëgg la man xam naa fu mu waxee. soo demee yow ba sa morom doomu am nga di ko sacrifier yenn sacrifier mm. kon ñaaw na te tamit ñun population bi ñoo ko def nga kaawu demee nii nan dem siège hôpital bi am na loo nga xam ne dóor fayu la mm. doo toog di wax wax dañ ko dépassé mm. soo professeur mu ne pratique il est temps que ñuy pratique ñu ngi pratiquer mooy la ñu dem doxu ñaxtu dem ba ci kaw hôpital bi dem ci hôpital bi hmm. wax fa lu fi wax fa la nga xamante ne mooy góom bi parce que tamit loolu toog fi mbala mbala mbala rek toog ceene ku hmm. na noppi wax takk rajo yi dañ ko dépassé hmm. na population bi jóg xamal ne tey su nekkee kooku suba man mii la wala kii la loolu nag a mën a xeex bu ñu dee pour bon faa pour tout après dépassé nañu wax ok Abdoulaye na euh, euh, nga quand même déglu ay kàddu am il a décrié quand euh, la démarche et il a incité aussi la population à ce que nous jouons aussi Euh, cri de cœur euh, Donc lui il a parlé au nom de toute la population et aujourd'hui aussi c'est la chose la mieux partagée de tous les Sénégalais voilà yow bon effet la def très bien donc d'abord je wax ni li ma gën a metti ci mm-hmm. mm-hmm. euh, d'abord médecin mm-hmm. Euh, mën naa wax ni en général en général ñu si bëri ay stagiaires lañ. Mm. parce que nit mënoo ñëw muy nekk euh, iñaan loolu nit mënu ko. Mm. loolu warul toll foo xamante ni nit. Mm-hmm. sa moroomu nit am bakken comme yow. Mm-hmm. nga sacrifier ko lu ko waral parce que xaalis. Mm-hmm. parce que man tam am na ñoo xamante ni ay mbokk lañ. te dund naa yu mel noonu ñett lañu. te gaañu nañ te loolu lañ moo leen rey. mais dañoo nekkoon ci hôpital amuñu. ñu sacrifier leen. nu ñu leen sacrifier. parce que boo fa yàggee nga ñëw tëdd ca lal lal boo tëdd li gën a metti. nit feebar yow nga xam ni am na bakken comme yow mu feebar amul lum la fayee mhm. nga ni maanaam sama yoon néew ci du ma ko laal mhm. léegi doo ko laal loolu bu dee nga ni ah suñu néew ci nañ ko gaaw génne mhm. mais bala moo génn nag li gën a garaaw dee ba pare di fayaat lal ba lu ko gën a garaaw dund na am na sama benn ndijaay boo xamante nii maa ngi koy ñaanal yal na yàlla yal na suuf ci kawam dafa gaañu mais bala maa dugg tamit ci kaaw ki nga xam ne moom récemment mooy à Rufisque. jigéen googu daanu ci étage dafa metti lool nit Euh, am malaat malaat bi di fay lal bi. ay euh, chaque jour quinze mille francs mu deewaat ñu naan dañ lay laaj ay cinq cent mille. Mm-hmm. naqar boobu bu yàggee da ngay gis famille ba daal di fippu. daal ni koor baa ngi noonu lu ngeen xam def leen. Mm-hmm. te am nga mettit mais da ngay ñàkk pexe parce que amatoo loo ci wax. Mm-hmm. nga am am néew ñu naan laa jëlal euh, yow bu la neexee sax lu la neex defal. donc li ma metti cri du bi mooy lan nañu xoolaat médecin yi ni ñuy def. ba pare tam am na cas boo xamante ni par exemple dañuy gis koo xamante ni chaque jour ñu gis ko. Mm-hmm. boo feebaree bu ñu xamee ni maanaam yow euh, say parents wala ñi la ñi nga xam ni ñoom ñooy say waajur. Mm-hmm. nar ñoo fay dañuy anticiper sa dee. Mm-hmm. dañ lay soit bu ñu la sampalee bideel ñu rocc bideel bi yow dootoo dund. Ah wala soit ñu pikiir la nga dee. ah bon du jeex du jeex te anticiper dañuy wax ni musaa wax na ko léegi suñ professeur dee dafa mel ni maanaam mbóot rek day jékki-jékki rek dox ba ci yàgg daanu. dee gi. da ngay gis ne sax des fois yàlla nee nañ mooy rey hmm. ñu ni ndogalu yàlla mais yenn saa yi nit da cee bokk parce que nit dina dee mais nit mooy anticiper deewam hmm. te lu ñu war a xoolaat hmm. lu ñu war a ok bu ñu chers internautes euh, les intervenants intervention bu ci kii aussi c'est-à-dire beneen problème la indi bu bokkul ak problème boobu donc mu mel ni cas bi c'est c'est récurrent et ça dépasse même le cas de de la défunte fille qui est décédée récemment là euh,

ñun ñoo leen ci bàyyi man de ci caméra la waxee barki nabil Moustapha mm. billaahi wallaahi mm. tallaahi rawal rawal rawal hôpital bu ma mën a mm. nga def ma loolu ma tëj hôpital bi te am naa pouvoir tëj bi parce que lan la mbir mbirum jënd ak jaay la dama indi sama malaat man maa koy assuré mais yow doo ko assuré li may assuré mooy ñaata nga ma koy fajale nga ni ma temps kon amul droit jànni ma amul droit repousser ma. Mhm. amul ci benn droit. Mhm. kon d'abord i faut que sa bopp en tant que mhm. doomu aadama nit. nga xam kii tu es ak malaat bi nga yóbbu ak moom bu ma la joxee sama sa sa sa cër. dafa am loo xam ni mooy wareef mooy delloo ma boo ma ko delloowul. sama malaat mënul nekk ci kaabu ak kaaw bu mu mën a doon. ba ma yëkkati la teg la sama kaw malaat mm. ndax malaat boobu may indi sama baay la mm. malaat boobu may indi sama yaay la mm. malaat boobu may indi doom la malaat boobu may indi waajur la tout à fait malaat bi loolu li mu nekk ci man yow xamoo fu mu toll léegi ma accepté nga terroriser ma benn terroriser sama malaat ñàkkal ñu fayda ba pare rayal ma ko après ma ni garaawul ndogalu yàlla gis nga ñii dañuy liggéey ci wàllu technique na am fu muy toll cas de critique lool mais on fait tout mm-hmm. les moyens possibles ba mm-hmm. affaire bi nekk mm-hmm. waroo rawatina nag bu desul lu dul doomu a affaire doomu aadama ñu ne yow jàng nga ko yow professionnel nga ci kon tu dois faire tout tubaab bi da ngay dee sax duñ la yóbbu mais dañuy xool ba pare pourquoi comme ñooñu ko def ñu ni ba tey suñuy dëkk bi ñun mënuñoo taxaw ci genre situation boobu xale bi man je le dis en haut et yàlla reyu ko ñoom ñoo ko rey parce que fi affaire bi jógee ba fi mu yegg si mhm. nit mënul la indi nga war a opérer nit mhm. ah mhm. dugal ko minuit pour opération nga bàyyi ba trois heures nga koy doog a laal métit boobu ak ci xale nan la ko mën a tenir yow ci instant boobu yaa ngi naan kafe yow ci instant boobu yaa ngi ràcc ak sa famille nga naan bu leen dara jot yaa ngi naan yaa ngi protégé gis nga dama koy wax protégé famille dëggantaan du njaboot bi nga uuf moy njabet bi ngeen dajal ci mbedd bi ko ci protéger yalla jël lolu delloo ko sa kër te newoo ko. harcèlement hmm. biologique. Hmm. ñu dem ci kanam. voilà inshallah Ousmane vous avez fait le Japon euh, pays développé différence bu am culture différence de de de je ne dirais même pas de culture mais euh, attitude wu ñooñu fofu noonu ak fini naka ngay mëna def yow aussi ba mëna a adapté wu si li nga xamanteni ne da fay xew fii vu aussi par exemple euh, l'évolution bi nga xamante ne affaire bi da koy am aussi par rapport aux pays étrangers là. yal na la fal ciat tu as posé la question qu'il fallait mm. alors euh, quand je suis arrivé au Japon mm. euh, c'est-à-dire man quand j'étais parti pour la première fois j'ai fait trois mois mm. ma ëmbal sama jabar ñibbisiwaat wat bima ñewé def fi 5 mois ma bolé ko ak 3 euh, mois yi ma njëkk a def foofu bi may juste mu ngi nekk si terme dafa war a wasin quoi

woy buñ lay woyee ak ñaari exemple la jël quoi ñuy woo malade di koy woyal ak koo xamante dañ koy woo d'une manière si ak benn ton sec non mais il travaille psychologiquement ah. aussi si malade bi mais ñu bàyyi na nga dérouler ah, c'est-à-dire point bu am importance tu as vu donc euh, man je veux pas être un, un incompris un déchet humain c'est-à-dire adaptation boobu nga wax noonu on a fait coup d'adaptation la semaine passée

pourquoi tu réactionnes pas mm-hmm. fekk que c'était au bout mm-hmm. mais dama bëgguma wax ñu xam ne mm-hmm. maîtrise waaw boobu dof naa sax boobu c'était fini xam nga ko dund si biir moo gën a metti comme li nga wax lu ma gis fële ma ñëw ma xam ah dañuy nax niveau de vie yi bokkul ñu bëgg ñu ma bëgg a wax nañu def comme nii laajuma loolu parce que su ma ko laajee rek dafay doy waar waxuma ñu mel comme les pays occidentaux wala mm. développés mm. entre guillemets mënul nekk ñaanuma loolu bugguma le sax mm. mais le minimum fàtte naa sama doom dafa dee il y a euh, six mois On a réuni au ko dencandoo oh xam donc euh, si tu as vu on a on a vécu au Sénégal ay ay affaires yu dee yoo xamante ne sama jabar waaw sama jabar à l'étranger dama ko doon wax dee ba léegi dama ko doon nëbb dee

te te du du mujj fen loolu moo fi am. mais sama gars yi. Ah, Samb mbir mi doy na waar ah. doy na waar est-ce que y a pas aussi une complicité notoire lu tax pourquoi le silence de l'État. mais yow yow yaa gën a xam nguuru Sénégal yow loolu di ko wax ça ça fait pleurer dafa naqari dafa métti parce que coono population du dund ñoom su nekkoon ils sont conscients de cela mm-hmm. non waruñu am benn xolu yërmande rek. Mm-hmm. non war nañ dawal leneen mais seen yërmande moo jeex. Mhm. gis nga dëmb la wax mais maamu dëmb yi ñoo ñoom. Mhm. Mhm. maamu dëmb yi ñoo ne ci kaw di placer dëmb yu ndaw yi ci société Sénégal. mais affaire dëmb moo am foofu ah. parce que depuis des siècles affaire bii nii ñu koy wax te mënul mënul léegi mënul ah, mënul faju franchement c'est c'est c'est ça hein. malheureusement c'est c'est une facette. waaw c'est-à-dire bii mooy face visible du Sénégal hein chers internautes. xam nga hôpital euh. damay wax mané Euh, ñi naqari deret dañuy naqari deret ba dee. Mhm. parce que li neexal seen deret. Mhm. juste la te par contre juste mooy neexal seen deret. Mhm. juste te amuñu ko. injuste. waaw lépp a injustifié. waaw te ñoom juste mooy neexal seen deret. kon ñooñu mënoo fexe ba seen deret neex. day neex une seconde naqadiwaat rapidement. parce que lan la injuste bi. injuste bi lan ci hôpital yi. gis nga euh, man dama parce que da ngay bëgg défendre ñëpp mais doo ko mën. doo ko mën non mais man mhm. li may wax ni tout le temps ci émission yi. Mhm. damay ñaan yàlla rek agent du ko ñaan. mais mhm. bés bu amee. ki ma doon seetaan. dina ne naka de waaja la mu doon wax ci ay pla plateau du ay kaf. du ay kaf. xam nga lan parce que dama koy dund ak yow. non mais parce que man bés ma man du ma indee sama malaat moom. xam naa ne dafa feebar. waaye fi koy faj fii la. li ma gën a sax mooy mu dugg ngeen ne ma kii mooy ko faj. man je boobu laay gën a. am conscience wu que mhm. xam naa ni lu ma fa def jamono ji rek mhm. maa tooñ bu mu nee ngir yàlla mhm. maa tooñ bu mu nee jàpp ci maa tooñ mais tant que ñi ngi waxante nga naan euh, euh, mën naa ko faj mën naa ko lii mën naa ko lii te leer na ma ba pare ngeen ne ma temps ngay fay gis nga bu ma xasee ba fay sama problème nekkul ci diggante bu ma fay la bu ma fayagul de yow yaa ne ma lii la demal jënd lii la saal baa ngi nii ma régler loolu yëpp am nga problème tout à fait dama lay topp gis nga te kaa ma xamal la sénégalais yi bëri muy daal ñuy mhm. bàyyi mhm. wallahi hasim mhm. man de gis nga kaawu ndaw si bi man bu daloon membre de ma wala wala ci nga sama géñoo la ñu foqee ko barki Mouhamed laa lay waatal hôpital bi du tijjee noonu du bàyyi question bi du topp ak ñàkk bañ a topp hôpital bi barki Mouhamed moo du tijjeeku naka état bi moom naka ak ku mënti doon gis nga dafa am loo xam man su may ak guerre du ma ak ay doomu aadama kenn laay ànd ak suñu borom ku ci jox na la rek li nit ñi fàtte mm-hmm. xol moo gën a fort pouvoir mm-hmm. te barki Nabil Moustapha loo ci dëxëy mm-hmm. jëmale ko ci doomu aadama bu la def safaan ba mu dul daanu lu rafet xam nga olof day faral di wax ni dëgguma la sax yenn saa ñu ni kii euh, dañuy wax ni yàlla bu amoon doom chaque jour mu xeex xam nga lu tax parce que dee day am ñu ne ndogalu yàlla la comme ni ma ko mais yàlla yenn saa yi mu toog di seetaan jàmbi ni kii xaaral ma bàyyi ko ba xam moom ndax ni muy doxalee. Mm-hmm. ndax est-ce que man dans tout ça man maa ngi ci biir. léegi nag nga jàpp euh, kooku noonu mu ñëw feebar. Mm-hmm. comme yow imaginer bu nekkoon sa place tëdd. yow doo ko faale yaa ngi dem di ñëw dem di ñëw moom mu toog di la xool feebar mm-hmm. na mettit boo xamante nii la yàlla xam doy na. yow nga war koo dimbali soutenir ko. mais doo ko def lu dul di ko seetaan ba mu dee say loxo. mu ñëw nga jékki-jékki rek jël euh, drap bi. muur ko ñëw ay waajuram daan ni nangam nga ne ko c'est fini. wala nga xëcc ko ci pet. soo ay muñal. muñal donc comme ni mu ko waxee Moussa. billahi buma amone membre mhm. def nañ ko mhm. euh, à la mec, la mhm. loi du talion il faut lui faire subir le même mal nim ko fait. ko nga ko de ok euh, bal uh-huh. discours bi femme mi ngi uh-huh. sama dom dañ ko ci kilim uh-huh. ñu fekk ko fa ko fa xoolal loolu sama doom yow kooku kooku kooku ñu doon dugal sax mm-hmm. xam naa ni bu conscient woon mm-hmm. nekk nekk en santé mm-hmm. boo ko génnee mu bañ waaye rawatina nag nga fekk xale bu ndaw mu dugg ci bii ne yaayam ni ko muñal kër gi nga jóge am na kilim lool la ko yaay ji wax mu ne ko yaay mënuma parce que mënatul mënatul ñu ñu yëkkati ko dugal fa mag mu naan ponk lu magum jëmm lañ génne sama doom gardien yi ñëw jël ay ëppukaay du ëpp ba pare après kooku ñu ni dafa dee ñu ni non non ndogalu yàlla. ndogalu yàlla dafa xam nga tige uh-huh. um, ñaari cas ci lii daf ma fàttali sama rakab balaa muy décédé. Hmm. dafa doon wax médecin bi. bi mu koy posé ay questions. Hmm. ba ñu ko indi urgence. maa ngi koy fàttaliku. tu as vu. wala ba may maa ngi leen oo ma ne maa ngi dafa ma hmm. ay mois ba tey. mais mais noonu la demee. billaahi mais booy baa ngi sonn ñu expliqué indi ko booy baa ngi sonn. billaahi booy baa ci di wax ay wax yu dul ci. ay waay

médecin bi ñëw xool ne léegi dañu jaxase. ordonnance mais mais mais loolu. loolu surtout médecin yi tam war nañ cee wax. xam nga lii c'est pas des ne daf non dama ko dundati. non non du a bu ñu a négliger. léegi nag euh, xam nga dafa am lu may wax tout le temps mm. man pouvoir bi ma yàlla dénk ci fii. Mm. fi may liggéey laay wax. Mm, dama leen koy wax. dañ naan Moussa pourquoi amoo secret. man ne secret professionnel aw ma ko. ndax liy dimbale doomu aadama wala li lay wéral man duma ma ko denc mm. xanaa lu ma xamul mm. gis nga ak ku mu mën a doon ba ci ñi nekk nguur gi mm. képp ku ci négliger population bi ma waatal la ko billaahi man dafa am sama affaire fu ma koy teg man du ma sëriñ du ma warliw mais dama bokk ci réew mi ba pare li may wax dafa am dama koy teg fu leer da nga fi am baat am fi wàll comme xam nga benn affaire dafa am gis nga ku ko ci négliger day metti rek mais bala ngay dé mm-hmm. wala nga non da ngay dé dem mm-hmm. teud sa bàmmeel mm-hmm. fa ngay gëna gisé gisee lépp nga gis sa doom di ko dund ci man dara ci man dara tout à fait voilà donc euh, solution loy proposer comme solution euh di or di wor du bari euh di wor lu bari sax parce que lekk mo ñu yobé tay lu bari lu ñuy dal en général bu dul accident problème yépp ci affaire lekk la doomu adama yalla daf ko xajal ñetti parti mm-hmm. fii pour lekk bi fii pour ndox bi fii pour air bi mm-hmm. donc tey lekk yi ñuy lekk doy na waar mm-hmm. bari na ay affaires yoo xamante ne ni moom lañ ciy def euh, ba nga xamante ne ni euh, doomu aadama yi euh, seen feebar yu bari si seen yaram lay génn ak si li ñuy lekk lay jóge bu ñu mënee di woor lu bari pour

dinañu en tout cas profité mm-hmm. si conseil yi nga xamante que joxe nga ko aussi pour ñu mun ci euh, ki parce que c'est très important. Mm-hmm. Moussa euh, la solution. Mm-hmm. waaw nga solution bi. fa mu wax ci zaahir wax ci baatin. allez-y. xam nga lutax tax. yow mi yor hôpital man damay feebar te dinaa fa ñëw. mu teel ma préparer danaa feebar. dinaa fa dem ci kàttanu yàlla. waaye nag yàlla mën na maa musal. ba du ma feebar. waaye dama ko wax ni que ñaar yëpp pare naa ko mm. bañ a feebar man ci liggéey suba su ma xëyee sama yaram te bu ma mm. paree naa joxe secret bi mm. pour ki nga xam ni bu bëggee bañ a feebar mooy les trucs de fond que les gens ba xam dañ koy am te buñ ko jox doomu aadama yi ñoom seen bopp ñoo koy jëriñoo ci jàpp man je te parle par connaissance de cause en connaissance de cause boobu day oyof dàll day woyof waaye doomu aadama mosul woyof daa diis gan waaye nag bu oyofalee boppam rek oyof ndax amul lenn lu mu dëxëñ ci keneen te dëxuñu ko ci yow hmm. yaa ko yeewul te man suba su ma xëyee nag article bu ne sama yaram dama lay yee barke hmm. Nabi Mustafa hmm. ba ma may am cent ba fu ma war a dee moom suba su ma xëy dinaa yee benn affaire boo xam ne dafa war a nekk ci man te dama ko yee kenn mënu ci dara sama diggante ki ci kaw la solution bi lenn la mooy jinjeer ak lingom boo koy boolee dafay faj lu mat deux sant feebar yoo xam ne dafay nekk ci yow médecin du la teg bët moo tax duñ ko mës a waxee. Hmm. Hmm. 200 laa la wax de. Hmm. lu mat 200 feebar yoo xam ne dafay nekk ci doomu aadama. boo ko laalee di ko jaxase ñoom ñaar matin balaa ngay boo yeewoo. Euh, boo añee ba pare. booy tëdd nga xool. noo koy jëfandikoo. agent non da nga koy jël nga pressé ko. nga pressé ko mais dafa fort. tout à fait mais ñambax ci ñambax ci ndoxu lingam. ok nga boole ko. soo mm-hmm. yeewoo gis nga ay saan ak ñàkk fayda yi ñuy wax ni. Mm-hmm. ay feebar yi ñu bëgg a reyee nit ñi ay paracetamol dootul jarati. dootul jarati parce que gis nga genre affaire yi. Ah. mooy tax nit ñi war a génne secret yi di ko wax. Mm-hmm. parce que li war a mën a faj nit ñi. mais regarde les américains. secret boobu Amérique la jógee. regarde les ku la ciy téye. xam ne nit la nga xam ne nit la téye. <laughs> nit bu mag ñun dañ fii nekk di lekk xeetu lekk boo xalaat ñu koy lekk. waaye koo ci wuccax mu dem yoonam. ok kon il faut que. ces uh-huh. solutions ñu koy joxe. Mm-hmm. ma tëj euh, euh, nga jégal ma rek mais parfois. Mm-hmm. lii dafa ma metti mm-hmm. mënu ma ci sax wax parce que soo ci waxee. dafa am ay éléments yooyu bàyyi. parce que nee na information li ñu jàng. il faut ma dem fa. fekkee ko mhm. waaye li nit ñi jot wax ak mom mhm. lamu mu wax mhm. ñu on l'a bien analysé xam nañ nag fu dëgg feetee si suñu nopp laa de ma nak ci li ñu gis ci suñu nopp parce que bo waxé ni après 15 minutes nga woté waat waxaat li dañuy xam ne li nga fondé wul avocat ci loolu lañuy ñuy nit mo tax ñuy renvoyer ay procès di ko waat pour xool ndax les versions sont toujours pareilles par contre si les versions ne sont pas toujours pareilles on te condamne c'est ça kon ñun kenn duñu condamné ci par rapport ak affaire femme bi dañ ci joxé juste suñu mais cest dire c'est factuel. c'est factuel c'est factuel c'est des faits réels yi nga au-delà même de la jeune fille. mais yow joxe nga fi exemple. exemple man j'ai des faits réels. Uh-huh. mais dama jamono c'est ça dama uh-huh. mais c'est juste pour dire que rek. Mm-hmm. nit ku wax Samba rek invité. Uh-huh. Samba man Gambie sama mm-hmm. yoon newul ci feneen mm-hmm. balaa may jooyal kenn damay jooyal ci sama biir réew te réew mi li fi ne mënuñu mm-hmm. fi il faut ñu régler ko il faut ñu lijjanti ko il faut que ñu ko di karaj te ñi ko war a jiite c'est que dañu nekk ay des personnes irresponsables parce que xam nga responsable mooy la mooy nga diriger dara ba pare ñu xam ne yaa ko diriger ba pare ngay bañ ko la mere loolu moo fi nekk kon jasaakallahu xayran en tout cas merci beaucoup euh, Samb loy tëjee. voilà jërëjëf euh, sama tëj mais solution nga laajte solution. non yow dama ne la looy tëjee. looy tëjee solution. dama ne loy looy d'accord d' accord ba tey lu may man limay ah. may moy ah. grawul garaawul ba tey lépp nee li duuf ci nak bi xajul ci cin ah, voilà limay may moy wax man tax ma ne la looy tëjee. kon ba tey <laughs> limay may moy euh, dañuy faral di wax ni bëñ du ree jàmm. au moment où on est en train de parler. euh ñi ngi dund lo xamanteni ni muy wàllu. Euh, fee yi am ci hôpital yi mm-hmm. donc kooku boo ci reetaanee ñu ni kon kii li muy wax gëmu ko mm-hmm. mais fi may tëjee rek mooy médecin yi mm-hmm. ak pharmacien yi nañ am xolu yërmande parce que doomu aadama Moussa wax na ko léegi yàlla dafa bind euh, ñi mu bind ñëpp doomu adama la ci gën a foog te nit na bu demee ba oyofal boppam sa veut ko kon nag moom xamatul li mu doon kon médecin bu tiimee malade di ko faj na ci am yërmande te bañ a xool xalaat ay xaalis parce que ñoom boo xoolee médecin ñoom la ñuy fay bañ mat sëkk médecin euh, xaalisam weer wu dee sax balaa weer wu dee ñu fay ko. ñu fay ko donc kon moom warul am xolu ki ñaan mm. ni kii. feebar na amul xaalis du ma ko xool pharmaciens yi aussi dama leen duut baaraam ñoom nañu bàyyi li ñuy def nit bu ñëwee ñoom doo leen desal fifteen te ñoom boo leen desalee des fois li ma metti ngay jënd garab ñu la ay mille di ci teg ay deux yooyu mu jeex ay fifteen waaw yu yu ñaar dërëm wala ñetti dërëm yoo xamante ni voilà yu ñàkk fay alors que mënoon nañ ko téye ci deux cent yi rek wala ñu arrondir ko ba vingt cinq wala cinquante sax voilà loolu rek lay tëjee ah. muy lan médecins yi nañu am yërmande. Mhm. pharmaciens yi aussi nit bu ñëwee ci moom des fois. Mhm. pharmaciens ak médecins yi dañoo luyee. Mhm. moom bu ko bindalee ordonnance ni ko yóbbul. moom bu demee amul fële. day bloqué wu. dëkkale mu nga malade ba mu ngi koy xaar sonn di xëxët di xëxët sonn na nekk ci. ce qu'on appelle en français la période d'agonie mhm. période de transition entre la vie et la mort mhm. nga nekk ci diggante boobu amul kenn ko xamante ni mën na la fa jàppale ku dul yalla rek mhm. Yalla aussi seytaan ñu jël so ruu rocc ko té doomu aadamaa ko def kon médecin yi nañu am xolu yërmande merci beaucoup nañu am xolu yërmande médecins yi Samb looy tëjee non da ngay non tëjal tëjal <laughs> non mooy sama cri de cœur ah, sa cri waaw léegi cri de cœur. Ah, rapidement nag rapidement. Ah, waaw rapidement waaw rapidement rek. Sadio ba dafa laa wax rek. Uh-huh. koo xamante yàlla jël na mm-hmm. parce que bu leen fàtte de médecin mm-hmm. wàllum faj. Mm-hmm. kooku jiw yàlla la yàlla rek mooy faj. yàlla dem ba jël xam-xam boobu jox la pour nga mën faj parce que mhm. solo. Mhm. parce que yow yow yaay représenté yàlla ci wàllum faj. Mhm. ci kaw suuf yàlla baaxee na xam-xam boobu. loolu yow war nga ko mën a ko véhiculer mbaax bu yàlla def. ba jox la ko wala mbaax boobu war nga ko di ko wan say boroomu jaam. boole ci yërmande te tamit kii di kër xam na la. xam daal la caare. professeur waxoon naa la. la bëgg naa dem mi reportage boo xam ne ci euh, kii wu caare la. parce que parce que euh, hôpital boobu muy fonctionner dafa doy waar. parce que man mënuma concevoir hôpital bu nekk ci biir banlieue nga xamante ne ñëpp seen loxo jox seen gannaaw. Mm. ngay fonctionner ñu demee noonu. Mm. mënuma concevoir loolu. te et loolu man bettu ma affaire bettu ma woon ci ñoom de. Mm. wallaahi xamoon naa ne tôt ou tard danañ dal. parce que man dem naa fa keneen kenn dem naa benn ñuy recevoir baaxul war nañu xoolaat seen bopp baax ñuy kii nit ñi. parce que feebar dafa doon loo xamante ne ñun ñu koy feebar nañ ci bàyyi xel. xam ne ñun ay banni aaram na ñu ñoom hmm. yàlla may na leen xam-xam boobu hmm. pour ñu jëriñu jaam nañ ci hmm. jëriñ jaan yi te bàyyi si yenn yi du dara yéen tey lii laay wax ñoo war a mobiliser dem ci hôpital parce bi ñu koy kaas bëri na hôpital bi te dinañ rayal ñeneen ah c'est très sérieux laa lay wax teel teel <laughs> non c'est malaari fii si yow bay weer di nga déggaat leneen ci ñoom parce que dafa am ñoo xam ñàkk jom ñu nekk si biir société seen yoon new ci lenn tamit mënu ma concevoir benn affaire cri de cœur laa nekk. waaw ba tey yow moom <laughs> mënu benn affaire. Ah. yow tey sama xaalis xaalis Ousmane keneen ak keneen fayal la sa njàng. Mm-hmm. tabaxal la école. Mm-hmm. fayal lay professeur ba nga toll fi nga toll. Mm-hmm. nekk université dafa na lépp nga pare. ñu jël suñu hôpital tabax ko na nekkal ñu fa. ngay am yenn comportement yi yow au moins dañu war a jaam. suñu suñu ne nga ne yaara kàllaam. yaara nu koy waxee. yaara kàllaam yow loolu mooy sa rôle. dama après boo jógee fii nga dem jàngi daara nag. Ah, am problème am problème xoolal loolu. xam nga kon kooku yow waroo ko fay dara. te tey jii nii lu ñu wax dafa bëri de kii de kër. maa ngi tuuti rek. ah déet mais quand même. Euh, boole gars yi doole non non non nañ bàyyi xel. waaw waaw waaw li dugg ci nekk non non non. tey jii rapidement quoi. soo xoolee suñu professeur yëpp ñoo ngi ay clim. dix heures de temps lañ ko def ci hôpital bi. Mm. te yow ñoo la defal lépp. Mm. xam-xam bii ni gannaaw yàlla ñun ñoo ko def ci yow. Mm. li nga doon ñun la nga war ñoo tarbiwu. lu nu bëgg nga dox ci. ñoom kenn ci def dix heures de temps. ñoo ngi seen clinique yi bañ na ba soo ñu dañ lay seen clinique yi. pour mën a lekk sa xaalis. sa xaalis ça aussi c'est léegi nag ñun ñu nekk ci kaw. Uh-huh. wala la seet affaire bi. Mm-hmm. ñu doon ay complices. tout à fait di sucer suñuy sang. Mm-hmm. dëmm yu mag yi ñooy ñoom. Mm-hmm. dëmm yu yërëmul kenn ñi. Mm-hmm. ñooy ñoom ñooy ñoom te dëmm yooyu noonu noonu. Mm-hmm. xam naa nañ ci jóg. dinañ ci jóg incha allah di ma may benn minute Moussa moo doon jël moo doon joxe temps moo doon téye temps mais. Euh, dafa am loo xamante ne ni aussi ñoo xam ne dëgg la daal am na ñu mm-hmm. baax vraiment yu nekk si hôpitaux yi. malgré bi ma nekkee si difficulté yooyu noonu gis naa benn xale ndeysaan xaw ma na da doon door a commencé ndeysaan. mais mu ngi doon nekk si phase yu am yërmande si nit ñi. yàlla na ko yàlla ñaanal naa ko pour yàlla bàyyi ko ci yoon woowu mu nekk noonu pour mu bañ a changer mhm, mais dama ko doon waaw dama ko doon gis ni mu doon amee yërmaande ni mu doon nekkee si panique mhm, di daw di di bëgg a dimbali nit ñi quoi mhm, mais dama xamul nag su demee ba xol bi dëgër nu muy mel parce que ay nit yoo xamante ne voilà dañuy dem sa beneen bi mooy

saa bu ñu indee malade bi dañ koy te nga gis ay kii ñu ne médecin balaa kii ñu def tour xool malade bi comme cobaye comme li ñu def ci nax yi. Mhm. di xool ndax euh, kii bi. mais joué nañ ko fi voilà muy noonu. on a fait un film donc euh, mhm. ay cobaye la ñuy jël tout à fait tout à fait en tout cas chers internautes lii lañ leen indiloon tey si cette émission taxaw seetlu mais on compte pas s'arrêter là parce que dossier bi aussi il faut que ñu suivre ko nous suivre évolution affaire bi mun n'a xool ndax. ay ah, sanction dina faut incha allah incha des nga dem nga indi ñu éléments yi aussi ñu xool ndax ay sanction dina am ou pas ñu xool aussi état ndax dina jël ay responsabilités aussi combattre fléau bi ou pas mais en tout cas ce sera une affaire boo xamante que dañ koy suivre de très près donc on se donne rendez-vous très prochainement c'est un nouveau numéro taxaw seetlu. c'est vrai Tidiane tëj nga mais sama sama benn nijaay. Euh, waaw mais man xam naa ne baal ma uh-huh. président. Mm-hmm. te hôpital bi doon tijjeeku. Mhm. sama benn nijaay dama jënd scooter bi ma nekkee booy. Mhm. ma ne ko kaay ma. supporter la supporter la. Mhm. <laughs> mun ma noonu. ndax yow da ngay accélérer ba affaire bi. yem yem foofu quoi. mais da ngay continuer pour yaakaar di nga amaat leneen. man damay topp. man loo may def na doon parce que damay topp. soxluma de mais dama lay wan ni la. l' action moom action. ah dañ ni ak. sion sion bi moom dama koy am ok donc da ngay jusqu'au bout Yeah. tout à fait te noonu la war ok donc euh, nous sax la ñu fas yéene dossier bien hein. on va le suivre jusqu'au bout à très bientôt très prochainement Inch'Allah, sur Sénégal TV aussi vous ci taxaw seetlu non dañ koy suivre incha allahu rabbi loolu euh, ça on le promet hein, chers internautes ok donc euh, à très bientôt ça a été un plaisir de vous présenter quand même cette émission avec les invités ah nuyu అవసర్లు